comprendre nguur gi askan waa ngi jooy ne corruption dafa bari ci kaw xaalis si Covid dégg nga nit ñi feebar bañ tëj leen ñu dajaloo yow mi jàngoon bañ fal la nga lekk xaalis ba rapport war caa génn. Mhm. mais gis nga tey ne justice bi nit ñi wóoluwuñ ko. baax na wala baaxul si autre chose wóoluwuñ ko mais man Cheikh Ahmed Cissé ma ne. Mm. justice su Sénégal deful dëgg ci man. deful dëgg ci yow ci man waa te ñoom xam ne. li nga jotoo dundoo. waaw ñoom xam ne. den ma agressé dóor ma menace à filme filmé yónni ma porte plainte deux ans mënuñoo jàpp nit ñi ma ne neen séddale protect ci jumaa yi ñu tëj ma ñetti weer. nañ séddale. protect ci juma yi ñu tëj ma ñetti weer donc su ma wax ji ñaaw na. mais loolu nag c'était c'était trop dur quoi. mais lan la lekk. doomu mais mais buñ ko séddalee ñan lañ koy jox. xam nga tamit no xaar ndax loolu noon ndax loolu da nga koy tollaleeg bugg a rey doomu aadama da ngay tollale propos ci juma man maa gën a juma. maa gën a foor jumaa te ci dëkk toilet moo gën a importance jumaa maanaam bu ñu tabaxoon dëkk defar douche moo ëpp solo ñu tabax jumaa foog ñu comprendre que yàlla moo ñu defal suuf si yëpp jumaa la ci ñun. Mm-hmm. mais tey propos ci jumaa muy mu am yéene pour ñu rey ma ba ma tëdd ci kaso mais su ma jëmm ji nga xam ne ku ma rey rey nga ñëpp moom ñu dóor ma moom ba léegi nguur gaa ngi seet c'est pas